trois heures lamb ji dina leen fa fekk ndax mbër yi liñ nar a indi ci gàllaaj Ama Baldé li mu yor ci gàllaaj pare na pour jeexal waaye daan Modou Lo da koo jar léegi nag Modou Lo ji bu ci daanee Ama Baldé man sëriñ Bada laa wax man sëriñ Bada lu ma leen waxati bu leen ko gëm man maa jël engagement ferme Modou Lo Ama Baldé ko daan ba mu dummóoyu ñi nga xamante ni mooy ay supporteram jaaxaan ah la ko jaaxaanaloon contre Balla Gaye moo jaaxaanalaat Modou Lo nii nii nii may wax ak yow fii may wax ak yow nii Modou Lo daanu na ba jaaxaan lamb nag reenum ñam bi la la wolof doon wax waaye lamb ci ba nii ñuy wax ak yow nii nii may wax ak yow ban heure moo jot Ama Baldé moo fanaanoo victoire mën na waxuma pour ku kenn li ma gis sama Bachira euh, laa wax nag yàllaa ko moom waaye Modou Lo moom jamono jii ñuy wax nee nañ ko coppet ci làmb tegee nii ndax li koy yàqal moo bëri te ci biiram la moom muur waaw di di di yem foofu nag après ñu waxaat ci leneen. day soo mumat loolu da koy wër ndomba rëppeel ko si watu ndajoor ba lay daanoo. ah. barke seex na seex Sadul Abi. dama ne. waaw. bu fekkee ne sarax yi salasewul génnee wuñ ko ñaari mbër yi. Mhm. Ama Baldé dana song du ko gis dana ko wóor ndomba wetu ndajoor ba lay daanu jiyee. ah saltige wax na de. loolu la gars yi doon xaar de. préparé leen ngeen yóbbu. parce que combat bi moom komba bu dangereux la. kan la ñu takkal morceau bu verte bi. waa su ma la ko waxee da ngay xam kii daan kii ñu takkal morceau bu verte bi xanaa yoo xamoo ma. média def naa ci 15 ans ba dugg 16 ans maa la ci jiitu maanaam sunu borom may na ma xel mënumaa taxaw ne la diw lañ takkal kon kay naa la wax ne diw moo am mooy mooy am ndam li papa nga la da yaakaar ne séeréer bi dof la. waaye bi li lay wax lépp lu combat bi war a demee. kay daan ak nañ koy daanee ak famille daanoo bi xawlilaay waxut yàlla xamal na ko barkeb Seexu Tijaan kay daan ak nami daanee ak famille daanee Ama Baldé day songu Modou Lo mais bu ko songu ak lu xew dina ko wër ndombo hmm. waaw yoof nga dëkk man yoof laa dëkk maa dëkk si duusu ngapparu yi waaw ah, kon mooy daan Modou Lo Ama Baldé mooy daan Modou Lo waaw ah waaye mais ñun bu ñu bëggee am seen numéro nan la ñuy def dañ ko affiché si écran bi ñu am ko. waaw baax na amul problème. daana noppi lool ci loo xam ne bu ca yoonam ne it kenn boolewu ko ca mbirum ñooña la ci seen biir waaye ku néewoon ay reela it lu dul lay niru ak nit ci moom wax nañ lu ko jar rek mu muuñ yam ca. daana dénk saxaaba yi lool ñuy noppi lu seen yoon nekkul lu dul bu wax dëgg jotee ñu wax ko ak kañ ko war a wax te yam ca nee na it tex ëllëg ñeen na ku moomu làmmiñam koo xam ne balaa aw làmmiñam génn ci gémmiñam da koy soob te la koy soob day neex day nekk lu neex yàlla dal ne ku noppi nag ñaare néew na luñ naan daa noppi ba jàpp ko waxuñ nag noppi koo xam ne dangaa war a wax wax dalaa war nga ne pat su boobaa bu ñuy yóbbu yow la ñuy yóbbu yow la war a yóbbu ndax danga war a na wax waaye ko xam ne wërta wax ci yenn yi daa war a noppi li gën a gàtt daal mooy ku gëm yàlla am yàlla ku ko gëm xam ne mooy dundal mooy rey nii mu ñu fi indee ëllëg di ñu fi jëlee mën nañoo dekkal ëllëg dekkal ñun àtte ñu ku ko gëmee noonu xam ne bisub àtte ba ma ngi ca kanam nay wax lu baax te noppi waxuñu nag di wax lu rafet kese kese kese ngir raayal nit gannaawam wala lu ko neex kepp waaye looy wax nay dëgg rek teg ca ni ab jullit dëgg dëgg mooy koo xam ne jullit yi mucc nañ ci aw làmmiñam làmmiñ la jëkk a wax teg ca loxo ab jullit dëgg mooy koo xam ne jullit yi mucc nañ ci aw làmmiñam du teg ci deru jullit dara lu ko dara lu ci wër te teg donte teg ka dara jaa waaye suy wax ci moom it day seet lii dëgg ci moom te bu ko waxee nit mën koo roy jariñu mu jaar ca wax ko kon boo déggee ni ko tëg ni ko tëralee làmmiñ la jëkk a wax teg ca loxo donte loxo loram neexuta takk loxo mën na nit lu nekk ci xalaatam day ngay dégg ko man pour man pour man nee na loolee mu jàpp pour moom ba wax ko defe na dara néewu ci mën na caa sëngéem juróom-ñaar fukki at fekk mi ngi dund sax ba mu doonee gone la ko waxoon ñu di ko xoolee ba fii mu nekk dan na yàlla lim leen bañal bokk na ca yi ca gën a fës fu ngeen toog naan xiila ak xaala xiila moom kenn moomu ko ah nee nañ waxeef na nangam de waxeef na ni waxeef na ku ne mën na ko doon léeg-léeg nga dégg kuy nettali la muy wax lu baax la waaye tur woom cay tudd da nga dégg keneen ko wax moomale ko keneen keneen wax ko moomale ko keneen keneen wax ko moomale ko keneen kon mooy xiila rek dëgg-dëgg ku moom xanaa ñooña ñooy ñooy ñëwaat fii te loolu mënut a nekk ne moom mii moo ko waxoon wala moom mu ne maa ko waxoon bokk yi nag làmmiñ a ngi noonu euh, yonent bi nee na yàlla gën a leen yàlla gën a bañal bokk na ca xiilaa xaala ak lu ne lu tax nangam ak lu tee nangam am na ko yonent bi sallallahu alayhi dénkoon ne ko maa ngi lay dénk nga fexe ba sa jikko rafet waaye ba mu jiital it ya cay topp dañ cay topp jikko ju rafet ndekete di noppi ci loo war a noppi moo ci jiitu alayka bi xusnil xuluqi wa tuuli sumt daa di ne fa walladi nafsi bi yadihi maa amila alxalaayiq bi misliha amul kenn ku jikkoom di rafet ñu di ko waxante di ko ko jëwe te fekk téewul aw làmmiñam bokk yi wax ku ca bañ a tarxiis bañ dale ko xoole ëllëg nga koy nga koy sëngeem juróom-ñaar fukki at am na yent mën na ko ëpp waaye ngir mu gën a gàtt nit ki bu dee wax loo xam ne feeg téeméeri at kenn du ko xoole du ci sëgg ba ca jiitu mooy na ñaan yàlla rek na jiital na tàmmal aw làmmiñam ñaan yàlla jàng alxuraan ñaan yàlla loolu moom nit ko du ca mës a sax mukk bañ koy woo di ko jàpp bari na nag yu mbokkal yoo xam ne dañuy fekk yooya mooy wax lu baax ñaan yàlla lu amal nit njariñ njariñul àdduna ak àllaaxira ñaan yàlla mucc ci loo xam ne kum dal mën naa dox digganteem ak jaamu yàlla benn ñaareel ba it mooy néeg ba wax jot nee nañ wax daa ci niñ koy léeboo ci waxe li ñuul daa jooy ci ñetti barab na topp ña wax nag ñu ne ko bu jëkk bi loo jooy mu ne dañ ma waxta wax jotut dañ ma génne foo xam ne waruma génn ñaareel ba mooy dañ koo génne ba mu weesoo ñetteel ba dañ koo génne foo xam ne dégluwuñ ko bokk yi saa nit di wax ba yàgg ni daan déglu leen war naa sopp yi na muy waxee xam ne nit ñi moom ci leneen lañu nekk lu bokkut di déglu ay waxam